dal leen ak jàmm ci info 221 seen bi leen di jox xibaar yu abu te leen ngir dara bañ leen raw ak yéen ba tey ci xibaar yi mbokk internet info 221 mu bu tàng moo am nag ci euh, tribunal ba diggante avocat yi féetee Ousmane Sonko ñi nga xamante ne moo di euh, ñi nekk ci cour suprême euh, ni ki tel yi ci alxamis bi nag doon na lu tàng fale ci chambre pénale bu cour nag ndax joto a àddu ci pourvoi en cassation bu Mame Mbaye Niang maire bu Ziguinchor ak moom Ousmane Sonko jëm rek ci condamnation juróom-benn weer ak sursis ak ndàmpaay bu toll ci ñeent fukki millions ci suñu koppar cour d'appel nag moo joxe woon boobee ngir diffamation ak injure li nga xamante dem nañ ko débat bi nag ñu wéyal ko bu 10 heures jotee ba toftal fukki simili ak juróom-ñett président Diouf daal ubbi audience bi président Abdourahmane Diouf nag daal dina déclaré audience bi ubbi nañ ko laaj nag partie prenante yi kenn première tension bi nag daal di am fitna bi durée bi nag avocat jëm rek ci avocat wu défense bi Ousseynatou Ousseynou euh, Ousseynou Fall nag opposé wu diminution bi nga xamante ne temps jox loole moom naa ne àdduñu ci neuf heures dix heures ba mu jotee ba toftal ñeen fukki simili ak juróom benn si la ñu tàmbale nag plaidoirie maître Ousseynou Fall nag doon avocat bu défense jot na affirmé ne que Ousmane Sonko victime la ci persécution politique ak ce procès procès nag dañ ko war a dafa war a nekk benn mbir boo xamante ne partie civile rek ñoo ci war a gën a ëpp lu ñu wax avocat yi nag sàkku euh, ñu yokkat seen durée bu ñu leen war a def seen i plaidoirie ginnaaw finalement ba nga xamante ne nag seen i président jot na ko àddu buy treize heures Euh, bu 11h jotee ba ñaar fukki simili ak ñetti plaidoirie di wuyandi nag maître Ciré Clédor Ly jàpp rek ne objectif fu mbir mi mooy rek rendre inéligible lu ñu bëgg rek mooy bañal boole Ousmane Sonko ci liste électorale wala sax ci présidentielle bu 2024 yi loolu la maître Ciré Clédor Ly jot ndaxte nee na ñàkk droit ak critique amatu fi lépp cour di waroon a assessoir def nañ ko ba noppi jaratul woon nag coow ju bëri ji nga xamante ne bu mu di maître Khoureyssi Ba xamle rek ne procès bi nag mooy dernière chance ngir rek ñu éliminer Ousmane Sonko te nag mu ngi ci am xel bu ñaaw ndaxte buñ demee ci cassation loole arrêt la procédure ak préoccupation di yëkkati ay kaddu jam rek ci wàllu woowee bu 13h jotee ba toftal 15 minutes ñu daal di suspendre séance bi euh, présent bu cour euh, présent bu cour suspendre na séance bi ngir 15 minutes ñu noppaleku ñu évoqué waat nag nécessité ngir ñu gën a jëlaat seeni médicament fas remarqué ne euh, plaidoyer yi nag dañoo passionné ak tension bi persiste diggante nag ñi féete ci nguur gi ak Ousmane Sonko jamono ji nag dinañ leen toppal mbir mi ba xam rek euh, jamono ji euh, kan moo ci am ndam waaw wala déet ndax Ousmane Sonko dañuy annuler la nga xamante rek moom la ay avocat am daal di bëgg.